du lo xamné ne ak suñu euh, sabotage la ak yefu donc euh, manam ñuy gedd parce que dañu convoqué depuis une semaine bureau bi conférence des présidents dajé convoqué nañu nañu nañu ñëw débat d'orientation budgétaire le 29 juin conférence des présidents également nous fixons la date bi député yi groupe parlementaire préparé sérieusement nous tenons tenir ay séminaire préparé suñu intervenant sur deux temps de parole débat d'orientation budgétaire bi de nañu une député yi lu si nous waxtu yoo dañu débat 300 minutes Le gouvernement temps de parole 45 minutes nous nous, xamal sénégalais débat d'orientation budgétaire séance d'information Le gouvernement a fait un document ba nga la préparer loi de finances pour l'année prochaine 2025. document un document de programmation pluriannuelle économique et budgétaire Nous avons le ministre des finances pour présenter Si Nous suñu ko présenter en tant que députés, nous avons suñu orientation économique et budgétaire Nous avons bi présenté donc nous avons une orientation Nous avons un projet bi jëmmal projet du président de la république Bassirou Diomaye Faye ak gouvernement du premier ministre Ousmane Sonko nous avons préparé nous Nous Nous Benno Bokk minutes nous avons 76 76 minutes mais nous tagat suñu membre groupe parlementaire pour soutenir le débat un débat technique débat boo xam ne dina jëriñ Sénégalais mais comme que amuñu argument comme que duñu lire document yi comme que ñoom ministre yu fi doon ñëw tàggaate nañ nañ fi nekkee woon léegi régime bi changé na mënatuñu tàggaate donc euh, amuñu euh, ñu saboté ñu ne léegi ñoom dañuy annuler débat d'orientation budgétaire ba xam ne ñoom ñu ko fixé woon ñoo dajewaat tey annuler ko te nuñ ko anam ñu ko annuler moo doy waar parce que ñu convoqué la yónnee message message nañ lay convoqué whatsapp message whatsapp nañu convoqué minuit nañu yónnee suñu kii nañu présenté wu à 9h tey assemblée nationale am ngeen réunion bureau à 9h ñu bàyyi suñu yitte yëpp ñëw 9h toog ci salle bi di xaar président de l'Assemblée nationale 10h la dugg ci salle bi jéggaluwul excusé wul ñëw commencé lire un document qui préparé parce que nous donc nationale dañ assemblée nationale tenir ay propos discourtois premier ministre le premier ministre Nous d'accord Nous avons débat d'orientation budgétaire nous avons programmé tenir parce que gouvernement bi institution collégiale ministre des finances su ñëwee daa gouvernement bi yëpp a fi ne ñu ne ko yow lu ngay wax ak euh, décision mu nga bëgg a jël nii amul rapport amul rapport parce que lu ngay lu ngay da ngay parce que lu ngay wax ni déjà nu nga présenté feey demeewul noonu assemblée nationale kenn offensé wu ko lu ñu wax mooy ni defaraat leen seen règlement intérieur ma ñëw def sama déclaration de politique générale député euh, premier ministre lu mu wax mom le député yu bëree wax mom le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi wax mom la Mamadou Lamine Diallo wax mom la yenen groupe parlementaire wax ak ñepp ño xam ne am nañu xam-xam ci wàllum droit ci dëkk bi loolu nañu wax na député yi dajé mettre à jour seen règlement intérieur dugalaat ci premier ministre dugalaat ci déclaration de politique générale dugalaat ci motion de censure dugalaat ci question de confiance en outre yow euh, ndaje bi nga woté bureau bi nous déposé nañ fi proposition de loi déposé nañ demande de commission d'enquête parlementaire ak yeneen ak yeneen problème budget assemblée nationale war nañ ci wax problème règlement intérieur war nañ ci wax yooyu yëpp waxoo ci dara ñu ne woy euh, lire dans ci presse bi déclaration euh, déclaration premier ministre nga convoqué bureau donc ça veut dire que si ay caaxaan nañuy doxee si maatay nañuy doxee ci tappale nañuy doxee te lu si gën a grave, c'est ni euh, bureau convoqué il a fallu que Abdou ko mu bureau à la suite d'une conférence de presse de Benno Bokk il mu convoqué bureau à minuit ça veut dire que nous convoqué sous la pression mais il il que xam ne moom que donc nous, avons un président de l'Assemblée nationale mais pas qu'il xam gumba diriger wala marionnette ne alors taxawaay bi moy ñun en tant que groupe parlementaire Yewwi Askan Wi luñ doon wax mom la waxat moy ni règlement intérieur bi bu frauduleux bi ba nga xamne dañ ko falsifier ba nga xamne dañ ko jalgati bobu nga xamne mo ngi circuler nañ ko retirer benen bi lepp lo xamne mo jëm ci premier ministre jëm ci déclaration de politique générale motion de censure question de confiance nañu dajé débuté yi delloo ko ci règlement intérieur bi nga xam ne su premier ministre ne tenir sa déclaration de politique générale dans des conditions de sécurité juridique C'est ce que Tel wax jooju nous ñoom nañu en réunion de bureau Le président depuis novembre 2022 bëggul le règlement intérieur Il dégg ngeen ko discours am waxul règlement intérieur ça veut dire que nous avons daw dis moo daw débat nous avons xam na ni fait. ko donc mon responsabilité c'est de mu par parloir ñu bàyyi tappale yi ñu bàyyi caaxaan yi ñu jublu ci liggéey parce que assemblée nationale mënuñu kaa jox vingt milliards at bu nek, mais mu ñu ñu bañ a assemblée mi nga tëj ko nga ne ko c'est en travaux depuis mars nga ubbi waat ko juin député yi n'a a ñëw wax ak askan wi nga ne non non da nga leen di tere da nga leen di tere wax ak askan yi parce que yow sa groupe parlementaire bu ñu bokk amuñu argument amuñu lu ñu wax ah amuñu programme amuñu amuñu dara suite bu ñu affaire responsabilité bi daal ci assemblée nationale la assemblée nationale gouvernement bi ñëw na présenté wu na convoqué nañ ko bu ñu ñëw toog distribuer nañ ñu document bi jàngat nañ ko ba xam lu ci né ministre de l'économie ministre des finances dafa waron ñëw rek présenter ñu ben résumé débat bi amul ben conséquence ci gouvernement bi lu muy liggéey débat bi ñun suñu règlement intérieur la article 3 du règlement intérieur ak loi organique relative aux lois de finances. Mhm. loi loi de finances, ñun ñoo koy voté débat bi ñun lay jëriñ askan wi lay jëriñ donc suñ ko annu ñun suñ ko annulé liggéeyu gouvernement bi day continuer nous am dara lu muy luñ ci gàllankoor du am dara lu ñuy tere gouvernement bi daf député yi kayit nañu tere wax député yi nañu tere daf seen liggéey te loolu ñun nañuy ñaawlu loolu nañuy dénoncé parce que nous, ñun ñoo amoon

tey ñu ne le projet président Bassirou Diomaye Faye nous ñu présenter à l'Assemblée nationale sénégalais yi dégg ko loolu nous ñuy bañ parce que amuñu argument amul ñeneen Bassirou Diomaye Faye amul projet le ministre des finances ñëw ak projet président de la république Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre Ousmane Sonko nous da présenté Nous avons ñoo bañ duñ dégg sénégalais yi loolu nañu xam donc nous, ñoo seen en tant que député nous ñoo respecté wul nationale Nous ñoo respecté wul institution ku bëgg ñu respecté la da ngay sa voix respecter sa bop, mooy respecter sa règlement intérieur ce lii ñu def nii violation règlement intérieur violation loi organique relative aux lois de finances Nous, ñun groupe parlementaire nous, Askan Wi taxawaay bu ñu amoon ba léegi ci moom la continuer à ak askan wi taxawu askan wi pour vraiment Sénégal jëm kanam. jërëjëf jërëjëf. merci merci. 7TV leeral